asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 11 juillet 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal suñu làmb la. Leewtoo point net ak Leewtoo TV mu mel ni kii nag daal bu dee fi nga xam ne ni day moo di suñu làmb la moom dafa xëy ñëw daal nee na li leer ba leer day diggante ni Lac 2 ak Boy Niang gi nga xam ne moo war a am samedi le treize day li leer ba leer day yëglikaay baa ngi ñuy xamal ne day ku ci daan daal ci ñaar ñii moom ah jàppal ne daal di nga am Eumeu Sène wala nga am kii nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu ko wax nee na Lac 2 day bu dee daa daan jàppal moo kii nga xam ne nii day moo di Eumeu Sène moom daañu bëre booy ña ngi tam bu daanee mook Balla Gaye daañu bëre yëglikaay bee xëy tey ñëw di ko wax. xaw ma koy daan nag moom waaye kati Jóob moom daa mel ni moom mu ngay wax entraîneur écurie Ndakaaru ba daal lam leen di xamal day nee na kii nga xam ne mooy Boy Niang mu ngi koy dànkaafu de nee na ko booy moytul Lac de Guiers numéro 2 surtout ay kuwam moom na nga ko bu baax a baax a baax a baax bàyyi na nga ci bàyyi xel de ndax day bépp boo xam ne nii bàyyi woo ci xel ba mu dal la day mën naa yàq sa mbir su keroogee kate yi ñëw day di wax loolu lag itam kate nga koy wax de mu ngi koy yet de nee na ko defal ndànk ci booy Niang de ndax booy moom jàppal ne moom kenn mënta wax ba du dal ci sa kaw moom ak foo mën a ne moom samedi dala fay fekk Amadou Kati Diop moo xëy tey ñëw di wax loolu ci ñaar ñii nga xam ne ñoo war a bëre samedi te Baye Ndiaye tëgg fa loolu moom le mooy ay waxam yoo xam ne nii day moom Kati Diop tey xëy na di ko wax maanaam daal songum Boy Niang ñëw na ca ak puissance su Lac de Guiers ci wàllum loxo bu dees yëglekaay bi ñëw tey di ca wax waaye leneen loo xam ne tamit day wala keneen ku ca wax mooy xalifa ja di ab se nekk écurie Fass nee na ñaari mbër yi ay xaarkat lañu moo tax nag mu ne day li leer ba leer dal arbitre bu ñu war a jox combat bi mu arbitré ko samedi arbitre lay doon boo xam ne nii day bu yeewoo yeew bu am expérience tey itam nag am patience maanaam daal bañ a yàkkamti la muy def ngir day bañ moom mu jaxase pédale ya wala carte ga yëglikaay bi xëy tey ñëw di ñu ko wax waaye bu ba tey nag ci combat bu ca la ñuy des de ndax olof a ko wax lu def waxu lu aay di njàmbat mu mel ni ki nag ñoom day seen dernière face à face bañ doon def ca TFM day ñàkk ñëw Boy Niang day daa mel ni ki nag ah ndax dina jur jam ci diggante waa kër wala boog ñoom Baye Ndiaye mu tëgg làmb ja ak waa kër kii nga xam ne moo di Boy ñan bul xaat nag mu ngay leeral nee na li leer ba leer loolu nekkuloon ci contrat bi tey suba waxi noppi ndax moom burxaan ñëw na xool lii bañ ko doon defee ba mu ñëwee gis ne fii sécurité amu fi mu ne mbërëm bu mu ñëw muy Boy Niang loolu la se ba wax di ko leeral fii nga xam ne nii day mooy ci yëglikaay bi Leewtoo point net moom mu ngi ñuy xamal ne day li leer ba leer est-ce que samedi ndax alin Sall dina ñëw ca fa nga xam ne moo di ca làmb ja nga xam ne drapeau ba moom lañ ko tuddee waaye ñëw na tamit tey ci absence su Ama Baldé ga mu ñàkk a teew ci open presse kii nga xam ne nii moo di Boy Niang Leewtoo point moo xëy tey ñëw di ñu wax loolu waaye leneen loo xam ne tamit mu ngi ca Leewtoo TV mu mel ni kii nag diggante du mbay ak Lac de Guiers 2 day mbay Mbaye ngay leeral fa nga xam ne moo di Leewtoo TV seenub diggante yëglekaay ba wala boog site internet ba moo xëy tey ñëw di ñu wax ci mbir mooma leneen loo xam ne moom dañu cay dem yëglikaay yi ñëw xëy wax nu ko jàppal fa nga xam ne moo doon ca Abidjan Côte d'Ivoire capitale ba maanaam daal fa lañ doon amal ab tournoi boo xam ne day tournoi de fraternité lañ ko tuddante maanaam bala boo moom lañ ko tudde woon maanaam jàppalante ànd nekk benn mu mel ni ki nag Gambien di mburum Sénégal ak tey seen di mburum Sénégal moom gagné nañ fa ay médailles d'or yëglikaay bi xëy ñëw tey di ñu ko wax waaye leneen loo xam ne moom yëglikaay bi ñëw na tey xëy di ñu ko wax jàppal ab face à face bu war a am lundi diggante Mori Cargo ak kii nga xam ne ni day mooy Ndiaga Thiam ñu ne combat ba nag régularisé nañ ko le 21 juillet ca la war a am yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu ko wax waaye loo ci mën a dégg daal jàppal lambi samedi jii day fu ko waay nar a takk ci ak metti dana ko wees ndax ñaari mbër yi kenn bëggut a daanu moo tax fi mu nekk nii Talla Ndiaye coow laa ngi mel ni tulli ak màlle waaye ñun moom suñu coow ak bene jeex na démb nu ngay xaar Talla Ndiaye diggante Madagascar ak yi ku cay gañe ñu am la man daal li may wax mooy nañu naan ñaan boole xol yi ànd te ñaan suñu équipe bi ndax nag ñu jël coupe d'Afrique loo xam ne ay at ngi ñu tey ñu cay topp ndax nag mbooloo kat mooy doole te amuñu nag lenn lenn taala lu dul suñu réew mi nu bokk muy Sénégal. salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen ñu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ñëw ak yéen seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour bu ginnaaw bi Babacar pare revue bi dañuy dugg si jàngat bi di ko nuyu Babacar nuyu nañ la. Aïssa Faye madame Niang fay naa la ah di leen nuyu di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal waaxati di leen baal aysa maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. waaw gis nañ ni Babacar ba léegi pareegul ci supporté bi démb victoire Sénégal bi daal di dem demi final Babacar xëy tamit andi mayo bi moom dafa mel dafa ragal supporté day waaye ba match bi jàll mu doog a sol mayo waaw moo gën a wóor olof a ko wax dem ca làmb jay bàkku ay sa jóge jay bàkkoo ko gën moo tax rek saa yu ñu gañee ma sol sama mayo mayo bi moom xam nga mayo réew mi la lii la ñu li li moo ñu boole muy drapeau national bi kon nag li ñu xam daal mooy que ni nañ ñaanal suñu équipe yàlla may ko ndam si kaan bi nga xam ne moom la jëm gañe nañ démb bene yàlla dimbali nañu nañu tey ba loola jàll na ñu ñaan yàlla suñu mat match ak moo xam Madagascar la wala Tunisie ndax dinañ ci am ñoom ñaar kenn ci demi final yàlla may ñu ci ndam mais itam di profité di nuyu Abdou bu xarañ ndax moom ma solal mayo bi nag vraiment moo ma ko jox defar ko mu rafet jox ma ko kon Abdou maa ngi koy bu baax a baax di nuyu waa Petersen yëpp waaw. ñu dugg si jàngat bi Babacar daal di koy andee comme kii bi combat bi war a ñëw le 13 incha allah samedi dox ci diggante ki nga xam ne nii mooy Lac de ak Boy Niang fi mu toll nii nag combat bi jegseegul mais jàll jàllagul bokk mais su lamb ñëw na ci perspective yi nga xam ne moom mooy fekk si ñaari mbëri bala Gaye nee na bu bu Boy du ñàkk seen diggante taxaw kii di la daguère bés bu ci gagné moom it du ñàkk digganteem ak Eumeu seen taxaw mu nekk loo xam ne perspective lañ ko mën a tuddee. waaw maanaam loo xam ne ay lu war a mën a nekk la après bu combat bi jàllee parce que loolu li tax ñu war ko mën a xaar mooy xam nga tey comme ni ñuy waxee rek euh, bu dee la kaada booy ñang la bu muy duggee jooy ba tey yàlla nga koy may ay ndam. ñoom nag li ñu jàpp mooy bi yoon dañ koy arrêté mais làmba la ñuy dem rek lu nekk mën a nekk mais dañu xalaat wala boog kii bi def gëstu bi dafa xalaat ne que euh, bu fekkente ne Boy Niang daa gagné Balla Gaye dinañu bëree te bu ko regee itam li ñuy wax rek waaw des na ko wax moom ak lu mën a xew di nga dégg ku la ne maa ngi dox diggante Lac ak diggante Balla ak Boy Niang bu fekkee booy Niang daa gagné bu fekkee Lac de Guiers dafa gagné itam su keroogee ah diggante Balla ak Eumeu seen du mën a ñàkk parce que li tax mooy ñoom ñaar bu keroogee waaw booy ñang mooy ëma mooy magu booy ñang kon foofu itam bu fekkee lag 2 dafa dem gañe ji kii nga xam ne moo di booy ñang samedi su keroogee itam ëma seen dina bëri ji ak kii nga xam ne nii moo di ah la de waaw la de lay bëree li kon di kon foofu moom loolu mooy li nga xam ne ni mooy li ama am parce que nag làmb ji bu keroogee mooy composé woon noonu parce que am na fu mu jaar ak Lac la tamit am na fu mu jaar ak ëmma loolu lépp di ay bés yoo xam ne amoon na fi kon combat bi itam dina gën a leeral yeneen bunt yoo xam ne nii yu war a am lay doon mais nag làmb ji euh, même même euh, bàyyil suuraaleel ne que Eumeu Sène ak bon ak euh, ak Modou Lo bu ñu daanantee tamit dina dina ubbiwaat leneen waaw day ubbiwaat leneen kaar gi day gën a ubbeeku ndax Ama Baldé ngi xaar année na balance Bombardier ngi xaar Gris Bordeaux ngi xaar Tapha Tine ngi xaar ñoom Papa Sow yi da nga leen di sóoraale rëg-rëg da nga koy sóoraale ak yeneen sampion yoo xam ne ñu ngi ñoom Yékini senior ñoom ñëpp a ngi xaar ñoom Siteu lamb ji dafa war a amaat beneen composition jaxasoowaat ñoom Sa Thiès ani Garga Mbossé mi daan Moussa Ndoye bërki démb kon làmb ji war nañ day day il faut mu defarwaat waaw waaw. Babacar ba tey ñu des ci combat bi daal di dem ci ki nga xam ne ni mooy Père Kati Diop moom tamit nekkoon euh, ancien lutteur daal di nekk directeur technique écurie Ndakaaru moom tamit ne ñëw na ci combat bi joxe ci xalaatam nee na ki nga xam ne ni mooy euh, booy Niang li mu war a moytu mooy ay coups la de parce que dafa am benn puissance de frappe bu nekk ci ay ci la ci waaye tamit mu ngi xamal ni kii di la de na def attention parce que. kii di Boy Niang moom ak lu mun munti xew day dox ci kawam. waa Amadou Kati Diop ñu koy nuyu di ko siyaar defe naa directeur technique écurie Ndakaaru mën nañu sax sanc ko waaye tamit defe naa Tafa Gueye bi mu ne ci ay diggu guddeem moo ne woon entraîneur am bokkoon écurie Fass kon defe naa moom itam defe naa équipe nationale sax def na ko kon defe naa ñooñ su ñuy wax rek bu ñu waxee rek boroom xam-xam a wax ñoom du ñu wax ngir faral kii wala kële kon su ne Boy Niang na moytu xeexul Lac de ndax loxoom effectivement Lac de Guiers macha allah mbër bu mën a xeex la parce que dem na maanaam du hasard ñu di ko woowee le penseur du Waalo ça veut xeex moo ko ko moo tax ñu ko koy parce que gis nañ ay combat yépp yi mu ci bëri yi mu ci utiliser loxoom su la dóoree moom ah. yomb na laa teg loo xam ne ni bu keroogee du la neex wala bu la loxoom dalee kon defe naa loolu tamit lu jara moytu la te lam bi dóor la ñu wax yaa ngi dégg kon kat lool loolu mu wax ci côté booy Niang ñoom dégg nañ ko xëy na dañ ci bàyyi xel ndax mbër mucc na am nga ñu la encadré li mu wax tamit jëmale ko si Lac de Guiers itam loolu itam ku ko waxul joxoñ ko booy Niang li kat yi ne foofu moom mooy songi te dina songi te nit mënu ko wootere loolu tamit yaakaar naa loolu lay def dox ci kawam il faut mu loolu moom euh, yaakaar naa dina ko def parce que pour man loolu mooy toon loolu li nga xam ne ni bu ci amee ndam moo koy may way yaa ngi dégg parce que tamit loolu dafa jàpp ne moom kat xëy na mooy avantage am maanaam dem songi bi mooy mooy mooy doon avantage am parce que kon kooku defe naa xaar bi du ko arrangé waaw parce que làmb ji ñoom ñaar ku ci ne am na lu gën ci yow yaa ngi dégg mais nag li ma xam daal mooy song moom mu ñuy wax Boy Niang dina ko songi day songi force na xaarit ne mën nañ ko koo song ndax làmb la boo lag itam dóor ñu koy wax ne mën na koo dóor Boy Niang na xaarit ne moom ñu mën ko koo dóor ndax làmb dóor la ñuy neef kon ku ci ne suural lépp waaw suural xeex suural bëri ndax ñaari mbir yu la ñoo ànd ci combat bi Lac na suur bëri suur xeex booy Niang suur bëri suur xeex ñu xool nag fan la wane di mujj ak ay bëtam ndax mbër mi des fois ñu ne ko lii mooy avantage ñu fekk ko ci forum daan ko ci Ama def na ko ak ki nga xam ne mooy Malick Niang kere ci xeex la ko gagné yaa ngi dégg kon làmb moom li ñuy wax rek reenu ñàmbi la mm. fu ne la mën a demee ay soto fay ba tey ci combat bi la ñuy des dem ci ki nga xam ne nii mooy Baye Ndiaye ak staffu Boy Niang ginnaaw euh, keroog mardi def na face à face ci guddi gi mais kii di Boy Niang mujj fa teew mu nekk loo xam ne nag neexul ki nga xam ne mooy promoteur bi kii di Père Bourkhane tam dee dekk di manager Boy Niang ñëw na si tey andi ay leeral. waaw waaw loolu mooy face à face bi amoon keroog TFM mooy seen dernière face à face ah ñoom comme li ñu xam li ñu wax ñoom xëy na loolu si contrat bi ne na dem na. ba mu ñëwee ci lieu ba xool na ne fii amul sécurité dina wut ci contrat bi mu ne bërëm bu mu ñëw waa loolu nag euh, li ma si mën a wax mooy que ni pour man problème waru la mën a am foofu ci seen diggante ndax li tax mooy bàyyi promoteur la buy tëgg làmb booy ñang mbër la nangul na ko combat signé nañ ko mu war ko bëreel ah am na loo xam ne nag ci signature yi su ci amee mbër mi da koy respecté par A ou B leneen fekk ko ci am na yooyu nag du ma ne ma waree su ko def lu bokk du ma ne lu bokkul ci signature duñ su ci parce que entre ñuy liggéey il faut ñuy am la ku ci loo xam la wala wala looy wañ loxoom la lu ngeen ko ci sama gis la bu baax a baax a baax ba ma la xamee ba tey ci lam ba xam naa ne nit la nit ki nga xam ne nii da ngay waxtaan maanaam bëgg nga di waxtaan ak nit ñi essence parce que loolu moo mooy tax tey li ñu bëgg ci bés bi ñu am ko ci ci côté réussite yaa ngi dégg parce que promoteur yi li may wax rek il faut que nit ñi di leen jàppale ci lan ci yenn yenn communication yi ñuy def loolu dafay am solo mais ñoom promoteur am nañuy aman na ñuy waxtaan ak staff mbër yi parce que itam lamb dafa xaw a doy waar te ku ne dafa am gis-gis bu mu ciy amee mais loo ci mën a dégg daal nañu fexe daal jàmm am ci diggante yépp bu ko defee làmb ji déroulé ci jàmm jeex ci jàmm que le meilleur parce que ak lu mën a xew moom si gàttu yàlla samedi amateur yi ñu mat si nii jëlli la ñuy xaar waaw bu bi lañuy des Babacar parce que en combat bi moo toll noonu enjeu yi bëri te yegsi na ba pare samdi lay doon kii di xalifa ja tamit daal di génn daal di joxe gis-gisam si boobu combat moom nag euh, CNG lay waxal directement parce que nee na combat boobu arbitre bu expérimenté lañ ci war a teg jour boobu mu arbitré ko. waaw maanaam arbitre bu na bari xam-xam te yàgg ci mbir mi. yaa ngi dégg ba pare itam nekk ku bañ a yàkkamti moom xalifa ji di manager nekk écrit face loolu la wax ñu koy nuyu di ko ziar loolu nag loolu defe naa CNG moom loolu jël nañ ci seen ay ko tenir nañ ci en compte bu baax parce que lu tax mooy que yaakaar naa amul làmb bu amul fii te arbitre yi géré nañ ko kon dañ leen di ñaanal kay arbitre bi koy arbitre bés boobu yàlla na ko réussir loolu lañ koy ñaanal quoi xamuñu kan la wala nag wala ki lay doon wala kële mais liñ ci mën a xam daal mooy arbitre bi nar a arbitrer wala trio arbitral bi koy def fi yàlla leen yàlla dimbali ba ñu réussir ko la leen cay dim la leen cay dimbali nag bokk na ci mbëree ne ci géew bay bëree ndax am na ñoo xam ne buñ ni bëree moom yow mi sax di ko mën a arbitrer <laughs> waaw waaw wal biit gàng ay sa buñ la caxabalee nga tëdd wala ñu mbotti la ah wala ñu yenu la dóor la ci suuf wala ñu dóor la korosé nga toog loolu moom kenn du ko lam-laamee kon nag yàlla na yàlla def dimanche samedi jël bi am daal nekk jël boo xam ne nii xale bu mënta wax sax dina xam ne diw mii moo daan diw mii loolu la rek quoi waaw waaw <laughs> mais arbitre yi ñu leen di nuyu encore une fois rawatina suñu soppe yi ndax suñu ay soppe lañ dañuy jóge ku mel ni Malick Ngom maa ngi koy nuyu bu baax a baax ñoom euh, Sitor ak ki nga xam ne ni mooy Matar Diouf Mathia ñoom arbitre yëpp ñu ngi leen di nuyu daal vraiment baab ko ñu jeexal ba tey ak euh, Leewtoo TV dem fekk fa Modou Mbaye mi waxtaan ci diggante ak euh, Lac de Guiers tamit mu nekk lépp rek ci waajal combat bi. waaw waaw loolu lépp ci waajal combat bi Modou Mbaye di suñu confrère nekk ci 2STV ñu koy nuyu di ko ziar moom tamit ñoo demoon nañ seeti ko mu wax ci Lac de Guiers parce que déggoon nañ fi ay quelques tiraillements yu xaw na am wala ay nangam nangam andi na ci ay leeral defe naa ku dem ci Leewtoo TV top vidéo bi di nga seetaan loolu Modou Mbaye wax waaw mu mel ni que daal li may wax tout le temps rek ñun ñëpp di xama di bàyyante xel di joxante cër te ku ci nekk rek comme li may wax tey ay sa li ma la li ma yéene sama bopp naa la ko yéene su ko defee rek jàmmo ne ñooy parce que pour man kenn te yàqal kenn li tax ma wax ko mooy bu ma jéemee di yàqal ay sa ngir mu bañ a avancer ci la mu liggéey wala mu bañ a yegg fa mu war a yegg su ko rogee maa ngi juum maa ngi wax na ay sa laay yàqal mais sama bopp laay yàqal ndax yàlla bindu doomu aadama fonk ko ci ñun jullit ci li ñu gëm ndax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chrétien ba tamit ci la mu gëm ci yonte yàlla Isa muy kon doomu aadama yàlla moo ko fonk kon li war mooy nañu fonkante yéenente jàmm parce que loolu rek mooy tax ñu am jàmm mais dinaa yàqal aysa wala dinaa yàqal taala wala ma yàqal keneen ak keneen sabab nga yàqal rek ndax aysa jaamu bi suñu borom la yàllaa ko bind te yàlla lu mu bind nit a ko ci gënal nag waaw Euh, ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV ñu leen jox rendez-vous suba mais balaa boobu di bëggee Mame Talla Chéri Lébou ci caméra bi di bëggee Ousmane ak équipe Leewtoo TV bi yëpp di bëggee képp koo xam ne rek euh, yaa ngi suivre Leewtoo TV ak foo munti nekk si àddina ñoom Mado Italie Nogay Amar Gueye ah, ñoom euh, Ndongo Fall di nuyu tam ak képp koo xam ne rek yéen a ngi suivre Leewtoo TV ñu ngi leen di bëggee bu baax. waaw maam moo duggee taalib sëñ Ba sa taalib sëñ Mbaye si Abdou tamit duñ ko fàtte ñoom Xaadim Ndiaye xam nga gars yëpp duñu fàtte kenn ku ñu suivre rek Asi Diagne depuis Mauritanie di soppe Modou Lo moom tamit maa ngi bu baax a baax mais di nuyu ki nga xam ne tamit moom moo di Lamine Booma Sène di sama gain maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak ñoom Issa ñoo ñëpp ay soppe Eumeu seen la ñu ñoom booy Eumeu mais di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi béggee fii nga xam ne nii moo di Leewtoo TV internet yi amuñu seen fay ñoom Khadiros tuuti Yaay Sarr Fatma Fall ñoom Mbacke Kebe Italie ñoom ñëpp ah. ki nga xam ne mooy Serigne Ndiour tamit ba Italie maa koy nuyu di ko ziar sama gayen maa koy bëgge bu baax a baax ñoom da baax ca Norvège Assane Argentine Baara Kanji Brésil ceebu jën tamit bu xarañ loo mu nga ba Brésil ceebu jën maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di leen félicité yéen Sénégal yi nekk Brésil ndax Brésil moo jël Copa bi bëri ki démb ñuy nuyu ñëpp mais taala tey day nelaw xawma lu mu fanaanoo mais nelaw daal lay def di film ay nelaw di ko nuyu séri lébu di nuyu lébu Njaay borom ceeb bu neex bi ak zirig yi ci géejawaay kenn du lébu Ousmane maa ngi koy nuyu Modou Mané équipe ay Aïda Diouf itam mention spéciale di ko bëggee bu baax a baax a baax waaye di wax ne que daal lamb ji ñu jëm samedi maa ngi waxaat rek Aïssa nañ ko jëlee ci philosophie sportive maanaam nañ ko teg ci cadre sport xam ne sport la day jeex vainqueur bi du génn réew mi ki daan félicité ki ñu daan euh, ki ñu daan félicité ki daanu ñu encouragé ko jàmm ne ñooy. làmb kese la ñuy def di ñaanal Baye Ndiaye tamit mu réussir journée boobu samedi incha allahu rabbi yàlla na ko yàlla def di wax tamit internautes yi su ñu ne à l'étranger ndax dañuy suivre nañ dem jëndi code yi comme niñ leen ko waxee defe naa leer na fépp faal fu mu mënta doon.